nag noonu nga koy toppe ñeenti ñeenti ñeent doo xam ñeenti ñeent yooyu lu ko waral ba tax na ba ci weer yi al ashhurul xurum mu di ñeenti weer yoo xam ni yàlla day ñaan bu ñëwee bu conflit sax amoon nañu enterré hache de yi te def li ñu tuddee cessez-le-feu ndax ñeenti weer yooyu mais pour lan parce que ñeenti weer yi benn bi mul moo ko moo ko parrainé bopp beneen bi malakut moo ko parrainé boppam bu ñetteel bi job moo ko parrainé boppam bu ñeenteel bi laa moo ko parrainé boppam moo tax boo defee a shirk billah te inna shirka la la zulmun azim kon nag fasiixu fi l ard arbaata ashhurin pour ñeenti yooyu mën la pardonné mën la pardonné ndax ñoom bokkaale yàlla bi àtte nañu ko donc balaa yàlla intervenir ñoom ñu intervenir ba noppi moo tax yu bay firi wala fal noonu rek mu jeex dafay laaj ñu di ko seet nit ñi xam lu ci ne li muy jariñ lan la waaw yépp nag un peu ba ci boo fekkee nit benn gor nga dem tuumal ko waxal ko lu mu deful foog nga indi ñeenti seede yu wóor parce que boo indiwul seede yi ñu taw la waaw mais bu fekkee ni li xew kenn rek a ko fekke ñeenti fekke wuñu ko ñu ni fa shahadatu ahadihim arbau shahadatin billah yàlla bu boobaa sa benn seede la ñuy ñeenti seede yi moo tax boo ci fenee rek àdduna tukki waaw pour wax la yooyu dañ ko xaw a négligé te importance am ëpp na waaw bu ko defee bare na bare na waaw dem na ba ci école yi al madahibul arbaa waaw boo jógee ca al xulafaul dem ci al madahibul arbaa imam malik taxaw fi imam shafii taxaw fi imam abu xanifa taxaw imaam Ibn Hanbal ku ci nekk ak lañ ko jox ak dëgëram ak façon ba mu mën a intervenir ci sharia kon nag bu yooyu yëpp amee ndax ki nekk en quatrième position te mooy yonent bi kon moom am particularité bu muy am bu nit ñi ñu ngi ciy discuter benn bis man ak capitaine fekk ñu dem sport ba wàññeeku ñu toog di discuter foofu mu ni baatu iqra est-ce que jàngal lay firi parce que ñëpp loolu dañ koy firee lii lii lii de Dieu lii quoi li ngay liir lan la ba tax na yàlla li mu jublu ci iqra mooy fay ma fay ma sama bor man mi jël xam-xam yépp jox la ko laka zaatul ulumi min aalimi lxaybi wa minha li aadama al asmaahu comme zaatul ulum yooyu jox nañ la ko nag pour nga mérité ko fokk nga fay ma bor bi moo moo tax booy déglu yenn yi def lay reeloo waaw jibril ñëw waaw ci mbokk yonent bi loolu mooy lan ku dey ni yonent bi ak ni mu toll ci sunu borom yàlla yónni ku dey ni jibril nga xam ne réacteur yi ma wax malaaka yi ci des ñeent la ca moom juróom benn téeméer la ci am balaa wàcc si ci kaw suuf am na fu ko yàlla wuutal foo xam ni fa lay demewu dindi réacteur yeeg li mu àndal yépp ba soppandiku nit soo ko wàcc si ci yonent bi est-ce que kooku dina ñëw di mboq yonent bi naan ko jàngal mu naan ko maana bi xoori yooyu dafa xew yooyu dafa xew maa ngi koo wax capitaine ba ci waxin boobu firawna doon waxeek Muusa alam nu rabbika fiina walidan ah wa labista fiina min umrika sinin ngay gis ba léegi am ñuy waxeek yow ci boobu ton te li firawna doon wax Muusa ba mu jaaxle xamul xamul lu mu koy wax mu ni ko xanaa du sama kanam nga juddoo waaw xanaa du sama kanam nga juddoo mais nit juddu sa kanam tereewul mu mu raw la ci waawoon a ngi nii daaw ba ren ci jéem a toppandoo mu la lañu nekk ci gàmmu yi état bi li mu amoon yépp jox na leen ko pour que ren gàmmu gi ñu jéem romb Moustarchidine mais du ñu dab abadan gis naa fa oustaz Alioune Sall sax xam naa dañ ko ndeysaan sonal rek pour mu teew waaye moom xam na fu mu bokk waaw waaw waaw gis naa fa oustaz Modou euh, Fall moom it ma nga fa ca xaw bi na nettoyer tuuti waaw waaw ko defee ak façon moo tax bi ñuy tàccu ñoom tey ci seen réception officielle di tàccu le ministre de l'intérieur ndax ni mu waxe man neen wax na feneen waaw yaa ngi nii toog yàgg délégation wax na ci seen kanam wax ci cofeel bu mu am ci man xaw ma dëgg la am déet yàllaa xam waaw wax ci daayira bi ni daayira bi amee discipline ak ni ñu organisé woo wax yooyu yëpp d'accord kenn ku ne yaa xam loo loo wax na bu dee dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow yaa xam waaw mais man gëm naa ni li nekk ci mbooloo mi benn bu nekk Sénégal bu ko am amul du du tiitaru du tiitaru de billaahi alazim waaw la góor gi waxoon ca foire ba ndax Moustapha xam nga li nga réussir ci ni man man fi ma toog xam naa ko loolu mooy wax bi moo tax buñ ñu leen bëggee delloo ci ay détails du ma ko nangu waaw da ngeen di jël seen cap rek waaw bañ a changer li ngeen doon waaw loolooy tax daf may reeloo sax melentaan yi sax invité nañ leen ay gis nga sunu boroom ko am la xam nga waa Màkka dañ doon jéem a yonent bi eh, moom yàllaam ji ñett rek ko gëm waaw te mooy Muusa isa ak moom ñoom ñett ñooñu rek ñoo gëm yàllaam ji sunu boroom wax yonent ci ni ko wax leen nii leen may yàlla yoo mu jeex mën a pour wal ñoom ak importance bu ñu jox seen bopp yàlla moo ko ñoo ko yoon la yemale parce que li mu daj ci yow pour bind ko moom nga daj ci ñoom pour bind leen et puis moo tax inna allaha la yastaxyi an yadriba mathalan ma